faw ñu jàngal leen. jàngal leen métier. loolu mooy tax ñu liggéey. tey. kër gu ci ne. ba ci sama kër. ba ci sama kër. xale jàng na fa. am bac plus 4. ñu ngi bac plus 4 bac plus 5. amut liggéey. xale ñàkk na faa sant leen gërëm leen mbokk di safoo di bàyyi xel leeral TV wante itam di déglu leeral FM juróom-ñetti waxtu sa ngeem jot na fii ci diwaanu Ndakaaru ñu dëkk ak yéen ci xibaar yi. li gën a fës ci boppu xabaar yi bokk na ci mbir mu doy waar am ca diwaanu caaro yi ca marché ba benn waay bu ñuy wax Ibrahima Ndiaye jaaykat la moom nag benn samba booy de ab sëriñu taarix yaax boo xamante ne bi rek moo nekk ci réseau sociaux yi daal di koy dóor lu toll ci juróomi million naka la mbir ma demee da ngeen ko teewlu ci ndorteelu xibaar yi. ci njàng meeg njàngale mi ca diwaanu Kaolack ubbiteeg l'école yi jafe-jafe yu tar la ko ndongo yi di dundee. li ko waral moom mooy li ñuy wax ubbi tey jàng tey amu fa ndax mbëndëgu metti goo xamante ne bi rek daanaka moo ngi fa di lëmbe wante ki nga xamante ne bi rek moo di meeru gox ba di sëriñ buub demoon na daal di bërëb ba nee na daañu jël ay matukaay ngir bu ko defee ndongo yi mën a dem jàng ci seen teeyug bakkan dinañu àddu itam mbokk yi ci wàllug euh, xibaar yi ak lu soxal cancer di nga xamante ni bi rek moo soxal loolee nga xamante ni bi rek day dal suñu mbokk jigéen ñi le loolee am weer bu ñu ko jagleel muy octobre octobre rose ndax sénégalais yi xam nañu ko ndax itam daañu porox ndollu ci la weer ngir dem def piste li ñuy wax dépistage dinañ ci teewlu tontu lii ak suñu ndaw Fatou euh, Ndeye Fatou jot mi àndoon ak euh, Mohamed Sané ci euh, jotaayu xibaar yi xibaaru bitim réew mbokk ak xibaaru tàggat yaram moo fas yéene buur bi lee jotaay ñu dikk ak yéen ci yaatal gi. juróom million ci suñu koppar loolee ab euh, koppar la goo xamante ne bii benn waaye di Ibrahima Ndiaye jaaykat la bu nekk ca marché caaro yi dañu ko koo dóor maanaam escroquerie benn sëriñ tariyaax boo xamante ne bii rek moo nekk ci réseau sociaux yi di Facebook ak ñoom seen daal di koy euh, nax ba yóbbu ci moom lu tolloog juróomi million wante naxu ko moom dong benn sénégalais buy dund ca diwaanu Maroc ñoom ñoo lëkkaloo ngir daal di yóbbu ka xaalisam bu ni toll naka la mbir ma demee Ibrahima Khalil Jëmmee depuis presque ñaari at Ibrahima Ndiaye dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko nju jaaj jël ci moom lu toll juróomi million ci suñuy xaalis ñan ñoo def jëf ji ni mel waa jiile di ñëwaat di expliquer naka la mbir mi demee. ñu koy wax maam Thierno Fall King benn maara la boo xam ne moo ngi nekk site internet yi di wax lay def ay social. mu ne ma danaa la booleeg sama waa ji sama goro bii nga xam ne man maa ko may sama doom ma ne ko waa baanu waa ji woo ma téléphone na ma maam Thierno ma Penda la tudd mi ngi ba Maroc mu woo ma téléphone na ma maam Thierno Fall Zaking de moo ma jox sa numéro maam Thierno man daf maa bett maam Thierno Fall Zaking man daf maa bett 5 millions la. gannaaw bañ koo defee jëf ji ni mel moom Ibrahima njaay mu daldi dem ba ci mori ba wàkkaam porter plainte ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo jël xaalis bu toll nii ci moom. bi ma dugalee sama xaalis ba pare ma dugal 4 millions ci kee dugal sa 1 ci maam Thierno Fall sëkki léegi bi ma dugalee loolu ba pare léegi moom ñu naan ma tey suba tey ngoon topp topp topp topp ba sonn jotuma sama xaalis. te naa leen plainte ñu yóbbu ñu ñu entendre ñu ñaan ñëpp. waaye nag ba mu fa eggee mu mel ni dossier boobule sax dañ koo sàgganee. bi ñu leen porté plainte après ba pare commandant bi moom si jëmi boppam moo jël dossier bi woo woo ki nga xam ne ni moom la maam Thierno seqal mbir mi. kii mënuñu ko mënuñu ko téye mënuñu ko def dara ndax yoon téyeloonu ko mënuñu ko dara. nuy bàyyi ñu dem képp koo gis na sama vidéo bi maa ngi lay ñaan ngir yàlla lillahi wa rasuli ngir jëmmi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga tasaareel ma ko. tey jii la mu bëgg moo di justice sa def liggéeyam ngir rekk ñu mun a démasquer ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñooy defkat ñaaw ci réseaux sociaux yi. Ibrahima Khalil jame muy mbir mu doy waar kon nag ñuy xaar yoon def liggéeyam ci wàllu wu mel wante itam na sénégalais yeewu te xool fan la ñuy dugal seeni koppar. mbokk dañu àddu leneen ci xibaar yi wax ci njàng mi ak njàngale mi ak conseil académique bu université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru foofee nag daanaka amal nañu ko wante ñi nga xamante ne bi rek ñoo di kilifa yi waxtaan nañu ba daal di càmbar njàng meeg njàngale mi ci daara ju kawe ji ba tax ñu jëlab ndogal ne daañu tàmbali ci lu yàgg dara lii di njàngum ndongo yi ñu daal di dem ca lekkool ya mën fa jàngee loole nag mooy lu ñu duppee ay étude étude présentielle wante itam euh, gannaaw bi ñu waxtaanee ba juboo ci ab communiqué ñu daal di koy fësal moom recteur ba ne lépp luy prestataire bàyyeekoo ci centre des œuvres universitaires muy kudd daanaka dinañ ko dakkal wala dinañ ko ajandi ba jëmmi jamono wante itam conseil ba dafa daal di taxaw temm ne lu soxal nag ci weeru octobre bi ñu ne ba ca digg ba sax daañu fësal waxtaan yi seen digganteeg ñii di kuréel yi ŋànk wàllu ko ndongo yi di étudiants yi la muy amicale des étudiants ci fàttali itam ne lu soxal ay manifestation politique yi amoon ci réew mi yàggul dara moo taxoon ba ci diwaanu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ay yàqute am fa muy attaque yu jéggi dayo ba taxoon ñu daal di dakkal njàng mekk njàngale mi ca diwaanu Kaolack la ñu jëm waxoon nañ leen ko ci bopp xabaar yi li nga xamante ni bi rek moo soxal ubbi tey jàng tey amu fa wala sax bu fa amee itam ci jafe-jafe yu ko askan wi dundee ñii di ndongo yi ndaxte mbënd gu méttee métti moom fa daal di am ba tax njàng mi daal di tagga témbe ki nga xamante ni bi rek mooy meeru gox ba di sëriñ boobu demoon dafa doxantu nee na rek daal di jël ab ndogal bu ko defee ndongo yi mën a dem ci l'école yi jàng ci seen teeg bakkan ñu teewlu ci suñu ndaw kii di Oumar Ndiaye ak Babacar Thiall école élémentaire yu bari faroo ci diwaanu Kaolack nag dañoo am ay jafe-jafe ci bit école bi nga xamante ni moom la ñu dëdmal. bi yàq na école yu surtout école yi moom gën a mën a recensé mooy école gaawaan ay école Gansaye école gaawaan moom surtout ren euh, amul sax foo mun a teg sa tànk pour dugg si école bi. comme ni ngeen ko gisee cours école bi am na moitié bi yëpp dafa am ndox. donc am na salle de classe yoo xam ne accès de accès dafa dafay difficile aussi toilettes yi buntu toilettes yi dafa am ndox les toilettes sont fonctionnelles mais dafa am ndox ci buntu bi pour xale yi dugg ci dafay xaw a jafe loolu nag dañ cee am une euh, trentaine ak euh, fii spécificité bi moom dañu am xale yoo xam ne dañoo nekk ay silmaxa mais xale yoo xam ne aussi dañoo tëx ñi ngi fii am salle seen salle bi ba léegi pareegul ci visite bi nga xam te ni mi ngi ko doon amal ngir xool yooyee jafe-jafe kii di maire jàpp na ne ay solution dinañ ko ci jël lu yàggul dara li ma ci jàng rek mooy eh, am na ay jafe-jafe yu bari yu bari mais jafe-jafe yoo xam ne nii la jàpp naa ne maire bi moom bu ci jógee war na ko mën a régle ndax jafe-jafe yi day tourner autour de euh, réflexion mm-hmm. ndax école yëpp dañ leen defaree dafa yàgg day jublu ci euh, jàppale directeur yi dañ am ay ordinateur ay imprimante ay bureau jàppale leen ci ay gardien ci en même temps tamit ay femme de charge defaraat toilette yi et cours yi ñu rendre ko un peu mieux voilà buñ ko pavewul tamit ñu defee ko noo xam ne nii eh, dana mën a dana dana dana dana mën a baax en attendant ñu def nit ñu ñu pavé ko concept ibbi tey jàng tey bi nga xamante ni nii dees koy dégg rek diwaanu Kaolack mën naa am waaye nag ci ay conditions yu metti la ndaw yi nar a jàngee loolee tax sax tax na maire bi moom jàpp ne sax fii ay weer ñu mal dañ ci jël ay solution yoo xamante ne nii yooyee jafe-jafe yëpp ñu koy jaajëfal Omar Ndiaye ak Babacar Thial suñuy ndaw nekkal ñu ca diwaanu Mbour mbokk dañuy daal àddu ci leneen loo xamante ne bii ba tey ci wàllu njàngum njàngale mi la ca diwaanu Nottoguy Jamaa di ab gox bu nekk ca Thiès foofee nag mu mel ni ndongo yi bu ñuy dem ci l'école ya rek dañuy dox ay kilomètres yu bare bare di leen jural nag ay jafe-jafe loolu nag ngir indi cib saafara meeru gox ba dafa jël ñaari ndaamaar di ay bus ndongo yi ko defee mu leen di yóbbu di leen andi wante itam moom mer ba mu ngay sàkku ci nguur gi mu daal di gën a defar ñaari lycée yoo xamante ne bi rek dina jege askan wi ñu mën a dem di jàngi ci seen teeyug bakkan mu niru mbeng fële ca nootu guy jama ñenn ci ndongo yi fay jàngee dañuy am ay jafe-jafe lool pour dem ca école ya lu ni mel jaraafu dëkk ba naqarlu ko lool ba ma waral sax mu jël ñaari bus jagleel ko ndongo yooyee ngir wàññi seen i coono. yaay may ma paas baay may ma paas ma dem jàngi jafe-jafe day daal di taxaw kon nag loolu yaakaar naa ne moo ñu gën a motiver sax ba ñu gën a góorgóorlu pour que njàngam xale yi nga xam ne doon na yàqu. Euh, ñu fexe xale yooyu noonu wax dëgg yàlla man di continuer seenam njàng ñu taxawal ay bus tey pour que xale yi man di dem ci sécurité mën a dellu seeni kër ci sécurité yaakaar naa ni loolu lu am solo la. ba mu ci jugee it jegleel na leen ay fourniture scolaire ngir ñu waajal ibit école bii waaye terewul it muy sàkku ci nguuru Sénégal mu tabaxal leen yeneen ñaari lycée pour Notto Gouye jamaa commune bu Notto Gouye Diama ni mu tëddee tey fukki école ak juróom ñoo fi nekk ci biir fukki école yi ak juróom ñu xalaat ci ñooñu ñëpp. ñu fexe ba jox leen fourniture scolaire dafa bare nag ay daara yoo xam ne dañ fi nekk wax dëgg yàlla parce que nag noonu la ñu bindoo waaye tamit sóoraale nañu ñooñu noonu ba ñoom ñu mën leen jox fourniture scolaire. bu ñu waxee ne commune bu Notto Gouye Diama c'est un tiers de Dakar. tey benn lycée rek nekk fi mu nekk vingt 24 villages ak ay amoo tey bu ñu amatoon sax yeneen ñaari lycée dafay xaj donc kon nag ñu ngi woo état bu Sénégal parce que ñoom it euh, bu ñu déggee wax dëgg yàlla ñu jàppale ñu ndax kat fi nekk nii réew mi fi mu toll mooy jàng. ak jàngale. rafetlu lool lu ni mel sous préfet bu nootu guy jamaa ji sàkku ci chauffeur bis yi ñu toppatoo yooyu oto. di féliciter rek monsieur le maire ci lii mu def nit buy góorgóorlu dañ koy jàppale. li may wax ci kaay rek mooy entretien bi ak chauffeur bi koy yore. ñu veillé bu baax ci entretien wu kaar yi. parce que boo koy dawal da koy toppatoo. ay weer ñu àgg ci nga xamante ni mooy élection présidentielle yu 2024 kii di jaraafu dëkk ba bokk tamit ci cadre concertation yi ëmb maire yi nekk ci département bu Tivaouane ki ko jiitee di Demba Diop Sy nekk moom it maire bu Tivaouane mi ngi wax ni pare na ci yooyu la élection waaye ibbi na ay loxoom ci candidat bu ñëw te mën a suqali askan bi mu ànd ak moom. jërëjëf Mounirou Mbengue suñu ndaw nekkal ñu ca diwaanu Thiès samedi muy euh, tey jii daanaka. Euh, gouvernement bu wala Sénégal dafa yeewoo te amul gouvernement maanaam bépp ministre dañoo tekki ndombal tànkam Macky daal leen di jaajëfal loolu nag mu nekk loo xamante ne bi daanaka kii di euh, euh, ki nga xamante ne bi rek bokkoon na ci benn bokk yaakaar di Euh, professeur Mary Teuw Niane jot na yëkkati kàddu itam daal di ci wax ne moom mi nga xamante ni bi rek doonoon na fi euh, ministre de l'enseignement ci gouvernement bu Macky sàll daanaka sax ni mu tënkee lii di gouvernement boobule nee na rek ne doon na gouvernement boo xamante ni bii dund bu seer donc lañ ci nemmeeku wante itam ay jàmmaarloo di ëmmat yoo xamante ni bii daanaka deret tuuru na ci wante itam ay ndaw di ay jeunes yoo xamante ni ñàkk nañu seen bakkan ci waax yi muy ñiy dem ci mm, mbëkk yi daal di fay jaar ñàkk seen bakkan ay liberté yoo xamante ne bi dañu ko salfaañe wante itam yaakaar gu tas la ñu fi nemmeeku ci gouvernement bu Macky Sall du samay kaddu kàddu yi mari Teuw ñaan la moom moo yëkkati lu ni mel xamante ne bi itam dafa daal di fësal ne moom dafa fas yéene bokk ci ñi jogante ci njiitum réew yi ci atum 2024 bi lee di Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye xam ngeen ni moom moo fi nekkoon ministre de l'intérieur nekkoon na fi itam ministre de l'agriculture et de l'équipement rural wante itam bokk na ci samp tey partie bi ñuy wax APR tey nag la daal di fësal dëggal ko itam ne du bàyyi kenn di ko jiitu ca li nga xamante ne bi rek moo di jongante ba ndaxte dafa bëgg a doon président fii ci Sénégal loolu nag daanaka bettul ñu bare bare ndaxte moom mile bi Macky Sall ne dafa tànn amado Ba ngir mu doon candidat wu benn Bokk Yaakaar moom moo njëkk bokk ci ñi nga xamante ne nanguwuñu lu ni mel jàpp rek ne loole daanaka li ko sax sabab rek moom mooy dafa bëgg gannaaw bu mu yore ay fonctions yu bare bare ci nguur gi li mu bëgg bi yoon moom mooy dem ci beneen étape daal di am beneen carrière ci wàllu euh, politique mbokki dañu àddu ci leneen wax ci li nga xamante ne bi rek moo di weeru octobre bi ñu ne juñu naa leen ko ci bopp xabaar yi octobre rose moom la ñu wax muy octobre bi nga xamante ne bi dañ koo jagleel xeex jàngoro bi di euh, wàllu cancer bi dal suñu mbokk jigéen ñi leen ndax sénégalais yi euh, xam nañu ko bu baax a baax déedéet ñu bëree bëri xamuñu ko suñu ndaw nag di euh, Ndeye Fatou Diop àndoon ak Mouhamed Sané taataan nañu kàddu ñenn ci askan wi laaj leen itam ne ndax daañu profité ci yilay weer daal di def ay piste muy dépistage reportage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 mu ngoog Ndeye Fatou Diop leneen ba tey ci wàllu octobre bi ak xeexum jàngoroy cancer ay catholique ñu dupe leen ab groupe la boo xamante ne ñu ko duppee femme catholique femme de valeur tey ci suba dañoo amaloon ab doxantu diggante rond-point u ca corniche bi jàpp cathédrale bu ndakaaru lépp rek ngir ñaaxante wala itam ñaax askan wi ngir ñu mën a dem defi dépistage saytu seen wér yaram ngir mën a mucc ci jàngoroy cancer ñu teewlu bi le reportage ñenn ñi dañoo sol seeni t-shirt yu rose di jàllale ay message yu am solo ñii bokk ci bile marche dox nañu ay kilomètres yu bari ci corniche bu Dakar lu ni mel bokk ci octobre rose yamul kese ci exercice physique wante dafay wone doole gi bile communauté am wante itam booloo ngir xeex jàngoroy cancer. message benn la mooy na ñëpp dem dépister wu au moins une fois par an parce que jàngoro bi feebar bi mu ngi fi te euh, voilà lu dëgg la loo xamante ne la. kenn xamul naka lay ñëwee donc euh, au moins na ku nekk dem benn yoon ci at bi mu dem dépisté bile marche ña ca bokkoon ñu ngi ko jeexale ca cathédrale bu Dakar yegsi nañu fa nag ak mbégte wone ni am nañu ndam ci bile bëccëg. marche bi ñu boole ci octobre rose te ñu ko amal bokk na ci benn groupe bu ñuy wax femme catholique femme de valeur. muy firndeel booloo gi nga xamante ne ndaw ñi war nañu ko amal jëmm rek ci indi ab société bu mucc ayib yi lay xeetu initiative doon lu am solo ndaxte dina gën a jëmmal xeexu askan wii yëg-yëg bi ci li ma ci am mooy lëkkaloo gi dox diggante sport maanaam euh, yëngal sa yaram tuuti ak euh, li diine wax te ni ki ni ki diine sama xel dafa ne yor ci li Paul Musella mi waxoon rawatina ba muy bind benn bataxel chrétien yi waa Corinthe mu ne leen. Euh, dundu chrétien dafa mel ni dundu sport. suñu kàddu ni ki jàngu mooy euh, wone suñu coofeel suñu taxawaay ak euh, suñu solidarité jëmale ko ci jigéen yooyu léegi nga xam ne doomu jàngoro bi dab na leen mooy cancer bi laal butitu njurukaay ak buy laal weenu jigéen yi. bile randonnée pédestre ñu amee lekko ci corniche bu Dakar di fàttali askan wi yëpp ngir ñu dugal seen loxo ci xeex lu jëm ci wàllu ko cancer lii di wone itam ne bëggante ngëm-ngëm ak détermination doon na lu am solo ci liy indi ab yokkute ci askan wi rawatina li ñoŋal seen dundin. mu ngi noonu kon muy lu am solo loo xamante ne bi rek daanaka askan war nañ ci mën a bàyyi xel muy jàngoroy cancer na ñëpp daal di fas yéene rek dem di faral di seetu seen wér yaram rawatina ñii di jigéen ñi mbokki yi fafee la ñu jaar daal di dem ci ñaareelu pàccu xibaar yi. mu ngi noonu kon mbokk yi xibaaru bitim réew dañu koy daal di tàmbalee ak lu soxal suñuy doomu réew di ay ndaw Sénégal daal di wéy di jël gaal yi ba tey di dem ca waax yi ñu bëri nag di fa jaar di loru kon nag bi la yoon eh, ci eh, diggante eh, gaaw gile gis nañu rek na ñetti gaal yoo xamante ne bii dañoo daal di yàpp benn bi mu ngi ci tolloog téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ba ko topp di juróom ñaar juróom fukk ak juróom-ñaar beneen ba itam di téeméer ak fukk ak juróom yoo xamante ne bi ay doomu sénégalais lañu daanaka dem Euh, suba si ca El Hierro ak itam euh, fa ñuy wax Tenerife ci noonu itam gis nañu ne lu tollook ñeenti téeméer ak ñaar fukki migrants yoo xamante ni bi rek ñëw nañu yokk ci lim nga nga xamante ni bi rek moom la ñu waxoon démb di juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett kon nag loolee lépp bu ñu ko xaymawee ci àllarba ak tey gii daanaka am nañu lu tollook ñaar téeméer ñett euh, ñaat ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk benn ci ay doomu réewum Sénégal yoo xamante ne nañu fi jaar ci ci waaxi ngir dem wutali Espagne ca diwaanu euh, li nga xamante ne bi rek moo di république démocratique du Congo foofee itam nga xamante ne bi rek euh, député national Edouard euh, Mwanga Chouchou Izi moom nag dañu ko daan muy rek giiru dundam boo xamante ne bi da ko war a tëdd kaso wante itam daal di joxe ab koppar di ndàmpaay gu toll ci téeméeri million ci dollar américain loolu nag daal di koy tuumaal rek ci wàllu complicité ak benn mouvement insurrectionnel ak itam trahison loolu nag gis nañu ne ki nga xamante ne bi moom la boole woon ci accusation yi di capitaine euh, capitaine Moussa Maliroa bu police nationale moom itam dañu ko setal wicci ba mu set wante itam haute cour militaire dañu ko daal di reconnaître mu par mu bokk ci li nga xamante ni bi rek mooy député national bii nga xamante ni bi rek moo di euh, kii nga xamante ni kon moo di euh, Wanga Choussou ci euh, am M23 muy benn mouvement insurrectionnel boo xamante ni bi rek daanaka dañu ko boole ci ñi nga xamante ni bi ñooy def mbirum terrorisme ci diwaan boobule pouvoir bu Kinshasa nag moo ko daal di tuumaal lu nu mel mbokk yi loolee moo nekkoon xibaaru bitim réew yi nes gis ñu wax ci tàggat yaram xibaaru tàggat yaram benn ponk lay doon ak joueur bi di euh, nga xamante ni bi rek dafa bokk ci euh, euh, Betis di Liga espagnole daal di juddoo fii ci Sénégal moom assan Diao lay wuyoo daanaka boole nañu ko ci équipe Espagne bu ñi nga xamante ni bi rek amuñu lu tollook wala lu weesu ñaar fukki at ak benn loolu nag ñu ngi ko bëgg amal rek ci éliminatoire bu championnat d'Europe bu football espoir 2025 lay doon footballeur bi nag mu ngi juddoo fii ci Sénégal dëkk bi ñuy wax Ndangaan ca diwaanu Fatick daanaka rek mu ngi euh, bokk ci wala sax waaw bokk na ci ñaar fukk ak juróom euh, ci ñett ñaar fukk ak ñett ñu baal ma yoo xamante ne bi daanaka kii di euh, Santiago Deña woo na ngir ñu daal di jongante ak ki nga xamante ne bi rek moo di Kazakhstan ci fukki fan ak juróom octobre bi ñu nekk wante itam loole dañ ko fa yéene boole ci ñetteelu journée éliminatoire yu ni mel moom mii di Assane Diaw daanaka rek mu ngi toll ci ay atam fukk ak juróom-ñett di ko ñaanal ndam lu yaatu muy ndamuk Sénégal. mbokk yi loole moo nekkoon xibaar yi ñeel wàllu ko tey jii ci gaaw gile gannaaw ñaar fukki wala juróom-ñetti waxtu ci guddi. ma amoon mbégte lool doon ko faram fàcce feggoo ak euh, ki nga xamante ni rek moo di Alioune dara Sakho ci xarala gi wante itam euh, kii di euh, Samb moom Matar Samb wante itam di jaajëfal bu baax a baax kii nga xamante ni moom moo réalisé bi le journal ba ba ñu mën koo sotti ba ngeen mën koo bàyyi xel yéen askanu muy Fatima topp kon nag xibaar yi daañu dikkaat ci ni mu gën a yaatoo ci kàllaame nasaraan lay doon 21 heures ak kii nga xamante ne moom mooy euh, le grand reporter euh, Ibrahima Khalil Jame mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla ko yàlla tuur ci askanu Sénégal ñu fanaan jàmm